ak yoon waaye nag li nga xam ne moo am ba de sàll bëri na chef d'entreprise yoo xam ne nax na leen dëbb na leen linja ba encaissé seen xaalis waaye tamit bëri ay commerçant yoo xam ne nax na leen moom Issa Souare mii yéene kaay xëy di xibaar moom Rewmi Quotidien nee na ngóor si nag da doon nax gars yi di leen wax ne leen maanaam mën naa leen a wutal ay financement waaye nag gars yi dañoo doon joxe li nga xam ne mooy caution am na benn waaye bu tudd boo la entreprise am sax ca diwaanu Dubaay la nekk dafa dugaloon ab caution boo xam ne toll na ci cinquante millions ndax dañu ko déposé cinquante millions maanaam ñu jox la cent millions ginnaaw bi mu déposé cinquante millions nag di xaar cent millions maanaam France li xëdd na dara jotu ko dërëm jotu ko fifti na waaye tamit am na beneen jigéen bu tudd Xarjata Jenga moom tamit dañ ko waxoon na ko déposé la ab caution boo xam ne dina toll ci fukk ak juróomi millions maanaam quinze millions soo ko déposé ni caution danañu la jox lu toll ci trente millions muy xaar trente millions waaye nag ba léegi dërëm jotu fanweeri kaso yéen i kaay gi de la turbina bàyyi mbir moomee wax ci lu nga xam ne ñooy waa ñu ànd ñu ci benn yoon waaye nag Khalifa Ababacar Sall moom ba léegi dafa noppi ci mbir mi Khalifa Sall nag dafay bëgg a porox ndoll ngir ñu effacer li nga xam ne moom lañ ko doon toppee ni ay ndëngte wala Khalifa Ababacar Sall nga xam ne moom la Karim Wade lànkee waaye nag Karim Wade mi nga xam ne mooy menacé wax na dafay génn PDS Karim Wade su génnee PDS lan lay tekki ci lu jëm ci wàllum politique la turbine ñoo Rewmi Quotidien ci xëlim ak Assane Samba nee nga xam ne moom la ñuy wax soo moytuwulee dina tax intercoalition Yewwi Wallu daal di tas yéene kaay gi di alerte Pape Modou Fall de l'emploi moom nag nee na ànd na ci lu jëm ci wàllum amnistie Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall ndax nag bu ñu nekkee ci réew mi daal di wax ne képp koo xam ne condamné nañ la maanaam dutoo mën a bokk ci élection loole nag dafay tilimal li nga xam ne mooy sunu démocratie ci yéene kaay gi ci lu jëm ci wàllum ubbite école ge ak gàmmu geek bi maanaam jafe-jafe dëkk bi loolee tax na bëri ay waajur yoo xam ne seen bopp dafa tëjoo maanaam jaaxle nañu loola te li nga xam ne mooy fourniture yi maanaam dafa cher ba maara détaillé yéen kaay gi di Le Quotidien nee na hôpital dalal jàmm scanner ba moo paana yéen kaay gi di A xëy yóbbu ñu ca diwaanu Diourbel nee na nag foofee dafa am benn usine agroalimentaire boo xam ne moo fa explosé am na kenn koo xam ne ñàkk na fa am na juróom-ñeent ñoo xam ne Koïta njiitu réew Mali ba pare daal di koy invité ci sommet boo xam ne sommet Russie Afrique la yéen kaay gi tamit nee na ñi nga xam ne ñuy waa Russie ñoom nag nee nañu dinañu jàppale Ibrahim Traoré mi nga xam ne moo def ab coup d'état bërki de moo njaay ca diwaanu Burkina Faso journal bi nee na délégation CEDEAO bi nga xam ne ñoo ñëwoon ca Burkina Faso dañu leen a yuuxaloo ba mara détaillé yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na sax askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Burkina Faso yémuñu rekk ci yuuxaloo délégation bu CEDEAO waaye ay manifestation la ñu fa amala ngir contre CEDEAO ak ñi nga xam ne ñooy waa France yéene kaay gii di leen foo xëy di ñu xibaar benn kër yi boo xam ne mbir mu doy waar a doy waar la ndax dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne moo doon benn xale bu góor bi ñu waxtaanee bu juboon xale bu góor bi génn lu toll ci huit cent mille francs daal di ko koy may may gu njëkk ñu daal di def réception mariage bi ba ñu ko defee ba pare ci Touba ci gox bii di guy mbindi xale bu góor bi moom tamit di espérer waaye nag bi ñu defee réception ba ci guddi gi la xale bu góor bi dem ci kër xale bu jigéen bi jàpp na nag dafay ànd ak mooma jàpp na nag lépp sotti na waaye ba mu demee xale bu jigéen bi dafa lànk takkandaare bañ a tëdd ak mooma loole nag moo metti waa ji waa ji jàpp ne yaay ji si bopp moo ko ci fara dañu ko dëbbuli nja waa ji porte plainte mandat nañu di xale bu jigéen bi ak yaayam ndax dañoo jàpp ne dañoo encaissé huit mille francs maanaam daal koy nax yéene kaay gi du loole boo tasee dañu la nag pression la ko ñenn ñi def ngir nga bañ a génn kër gi yéene kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa ngañ jaañ nee na combat bi dox diggante Siteu ak Papa bu ñu waxee